RFM Touba Mbacké 98.4 RFM Touba RFM Ziguinchor RFM Tambacounda RFM Saint-Louis ci jot na ci rajo bi ngeen taamu RFM mbokk jaa ngeen jëf asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi ba mu yegg see Sénégal moom mii di Juan Branco ci kenn ci avocat Ousmane Sonko France la joge woon ñëw fii ci Ndakaar waaye dañ ko taxañ ne ko dellul fa nga jóge woon yëf yi metti ko ba tey jile waral ni ki démb mu amal conférence de presse ne euh, na euh, conseil euh, Ousmane Sonko bii nag dafa jàpp ne président Macky na xam ne ëllëgam mu ngi ci loxoy Élysée ba tey ci wàllu xibaar dina ci gën a fës euh, garage bu Nioro ca Kaolack euh, mel na tulleeg male ba ñu renouveler instance bureau bi euh, xaajal ñu di transport porteurs yi coalition ànd defar garage Nioro nag dafa àndul ak doxalinu président bi fa nekkoon mu nag jàpp ne kilifa yi nañ ci àddu gaaw laata leen la ci dugg ba ci njaxtalu xibaar dinañ ci ànd ak yéen ak reportage bu yaa bi nga xam ne technopole lañ ko amal nañu koy yàqatee dundin geek nekkin bi doy waa li ko waral nag mooy ña fay amal mbayub dër ak toog yi ñu fay jëfandikoo waaye tamit nañ fay tabaxee saa su ak nu ne waral ba askan bi daal amal na ko si Ndongo Ka ñaal Patri Bari dina ànd ak Pamal Diop ci tàggat yaram ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. Seydou njaboot yi ak njegeñaale ñi jege kii di sëriñ Assane Seck ne nañ ko bàyyi gannaaw bañ ko tegee loxo ci manifeste bi amoon te ñu tere woon ko ca Touba fukki fan ci weeru février bi weesu euh, collectif ba nag ngir taxaw ñu daal di bàyyi moom it di sëriñ Assane Seck ni ki dem amal waxtaan ak taskatu xibaar yi ne lii du dara lul singali sëriñ Fallou Rokhaya Mbacké yoroon seen i kàddu ci micro beeg Pape Balla Gueye yi. sëriñ Assane Mbacké mii nga xam ne dafa nekk ci biir kaso bi tooñul deful luñ waxul luñ koy luñ koy tëj kaso te bu fekkee ne ci réewum démocratie la ñu nekk ku am xam-xam tey xalaat dana xam ne tooñu tëjug Serigne asan ci biir kaso bi bokk na ci injustice yi gën a rëy jamono ji ci biir réew dañoo may ñun ñi nga xam ne ñooy bokki boppam génnug Serigne Assane ci biir kaso bi suñ bakkan yi lañ ci teg billaahi wal kitaab Serigne Assane Macky Sall dana ko bàyyi ci nii wala ci nale lépp loo xam ne laaj na ko ci jamono ji danañ ko def am na ci ku ñuy wax soxna Diop di élève boo xam ne tey dafay jàng ñu jàpp ko tëj ko ci ay kasaw kasaw loo wax yoo xam ne tegul fenn. te ba nga jàppee ba tey mënoo ne kii lii laa ko jàppee léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo ànd moom di ànd ak moom liggéey bi fii ci Touba dañoo sonn dañoo tàyyi sonn gi ñu sonn tàyyi mooy dañ ñoo joxoon digal ñu noppi am nañ kilifa yu ñu dem ñu ne ñu ñu ciy wax waaye dafa yàgg lu ma deux mois ci looy wax yaakaar naa bu fekkoon lu lijjanti ko lijjanti na léegi nag ñun dañoo mënut a xaar ñun nag ñu àndal ñëpp li may wax lu wér la te da ko gis fan yi dinañ wàcc ci terrain bi wan leen ki ngeen jàpp di ngeen ko bàyyi ci nii wala ci nii parce que nekkul koo xam dafa war a nekk fee sëñ Assane comme ni sëñ Fall wax bu defoon dara dañuy ñaanal Macky Sall ne ko bàyyi ko waaye ku deful dara duñ la ñaanal Macky amuñu luñ lay ñaan ndax yow toroxal nit ñi moo la fi nekk toroxal sët sëñ Tuubaa yi nga fi nekke toroxal waa kër sëñ Tuubaa ak Alaaji Maalik ñu des ba tey ca Touba Mbacké na leneen ci wàllu investissement man maanaam mu yokk day kaddu Khadim Bamba Diagne di euh, euh, di yëngu ci wàllu koom-koom Euh, mu a jàpp ne liñ fay def sak euh, at wu war nañ ko yokk ca gax ca gox boobu di Tuubaa Mbàkke yëkkati nag yooyu lekk kàddu mi di Xaadim Bamba Diagne ci ab cérémonie euh, buñ doon amal ngir jàppale yenn ci ay njaboot fa ca Tuubaa mbake di taxawaay boo xam ne Touba ca kanam moom moo ko amee Pape Mbaye Diaw cee leeral. buñ sukkandikoo ci docteur Khadim Bamba Diagne nekk économiste enveloppe ñeent fukki milliards yi nga xamante ni at mu jot état moom lay injecté ci politique publique bu Touba jàpp ne na loolu dafa néew bu nu xoolee dayoo bi nga xamante nii Touba am na ko nga xam ne gannaaw Dakar moo ëpp mbooloo ci Sénégal loolu nag économiste bi mi ngi ko xamle ci benn ndaje boo xamante ni waa Touba ca kanam amalan nanu ko ñu yàgg na loolu nag moo tax. ba kuréel yu mel ni Touba ci kanam daal di ñëw ngir jàppale askan wi ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ngi koy am Serigne Abdou Moutada Mbacke ibn Serigne Abdou Fatah Mbacke jiite commission sociale bu Touba ca kanam di dellusiwaat ci yenn réalisation yi nga xamante nii Touba ca kanam amal nanu ko. ci wàllu mi nga xamante ni Touba ca kanam daf ko doon amal nag daal nay jébal ñett junni ak ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ci ay famille ay ndimbal yoo xamante ni leen mën a amal kooru ren gi ci jàmm RFM Touba Pape Mbaye Diaw Pape Mbaye Diaw foofee ca Touba juróom-ñett waxtu teg na juróomi simili ci rajo bi ngeen tàmm RFM pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi RFM rajo bi jaamu seen soxla bañ ko génnee Sénégal ne ko ñibbil mu delloo ca réewum France kii di avocat bu Ousmane wala kenn ci ñi layal Ousmane Sonko di Euh, Juan Branco moom daal dafa am lu ko métti ba tey waral nag ni ko jëm foofa ca France mu yëkkatee kàddu ne président Macky Sall nag moom na xam ne euh, ëllëgam mu ngi ci loxoy Élysée euh, foofe ca réewum France ñu lu ko ak Cheikh Sidou Silla. Mais qu'est-ce que Macky Sall l'Élysée aujourd'hui un homme kan mooy Macky Sall bu du woon gouvernement bu France kan mooy Macky Sall Macky Sall mi nga xam ni tey jii day tabb ci yaama neex poste bu mel ni ministère de l'intérieur Macky Sall mi nga xam ni askanu Sénégal gëmatu ko Macky Sall mi nga xam ni dafa dépendre ci puissance étrangère bu ci mel ni France tey jii kañ la Sénégal di moom boppam di demal boppam di lëkkaloo ak ay réew yoo xam ni lépp mi ngi basé wu ci souveraineté ma koy woon ak ci njëkk ak teraanga mu respecté boppam respecté askan bu Sénégal bàyyi ma ma dugg ci réew mi bàyyi ma ma wax ak tribunal wax ak ñi nekk ci yoon bàyyi ma ma wax sama xalaat ci réew mi foofu la ñuy mën a xam dooleem dëgg-dëgg ñu xool ndax Ousmane Sonko li ñu koy toppee moo ko def wala defu ko mu bàyyi ma ma ñëw wax sama xalaat bàyyi debaa bi installé wu daanaka ñu ngi koy gën a jéppi comme ni ñu jéppee Marine Le Pen ndaxte visite bi mu fa amal day wane ni rek Macky Sall itam ñëpp a ko ber. l'isolement de monsieur Sall. Euh, procès bu président Macky Sall ak euh, pouvoir am noonu la ko tuddee noonu lañu mën a jàppee daal euh, waxtaan yi nga xam ne moom it di Juan Branco amal na ko avocat bu réew mu France bi nag di kenn ci ñi layool kii di Ousmane Sonko jiite Pastef ñu ñëwaat ci loolu yëpp ak Cheikh Sidou Silla certainement dina am ñuy ne maître Branco dafa arrogant ñeneen dina ñu ne dafay cultiver impertinence pour mën a atteindre cible en tout cas si conférence de presse bi avocat bi critiqué na bu baax ma Sall nee na dafa delloo démocratie sénégalaise ci ginnaaw dénoncé na injustice sociale bi am Sénégal nee na pouvoir bi aussi dafay instrumentaliser justice bi en plus nee na médiocrité dafa am doole léegi Sénégal pour wone médiocrité bi dafa jël communiqué bu ministre de l'intérieur génne pour justifier expulsion bi nee na communiqué bi dañ ko bind ci français boo xam ni jaarul yoon en tout cas pour euh, maître Branco Macky Sall ay courtisan rek ñoo ko entouré avocat bi nee na nag tension politique bi am ni Sénégal lenn rek moo ko waral mooy que Macky dafa bëgg a nekk candidat ci élection présidentielle bu 2024 nee na nag Macky Sall yorewul décision bi décision bi Paris lay jógee bu ko Élysée ne utile beneen candidat candidat dina ko def procès Sonko Mame Mbaye Niang parquet bi def na appel avocat bi nee na appel bi dafay wone ni pouvoir Macky Sall dafa commencer fragiliser en tout cas lenn la bëgg mooy Macky Sall ko mu ñëw Dakar nee na bu ñëwee dakaar dina wone ni infraction de diffamation ñu wax ci leneen yëf yi euh, dafa demewul na waroon demee ca garage Nioro bu Kaolack ndax ba ñu renouvelé instance bureau euh, foofee nag euh, ci transporteurs yi waral ñu daal di ñàkk déggu ci yenn yi coalition ànd defar garage Nioro nag dafa àndul ak doxalinu kafa nekkoon président ñu nag o kilifa yi taxaw ci fatu Mbow coalition ànd defar garage Nioro di ñaawlu injustice bi ñu nemmeeku ci wàllum doxalinu élection yi nga xamante ne mbirum renouvellement de bureau la ñi bokk ci wàll gi nag di xam ne ne taxaw nañu temm ngir càmmarloog ñu ni mel El Hadj Dramé vice président bi les garages. Pape Ndour dafa tënk moom ak Alassane Ndoye wax ne. Euh, suba dañuy def élection. pare nañ pour jàppante ak moom. ndax li mu bëgg a def nii tegul ci yoon. tegul ci dëkk ñun nag ñuy yëgal sénégal yépp ne lii ñu bëgg a def nii. ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg. autorité locale yi ci mbir mu ni mel tax ba yile transporteur di njort ne mbirum ger moo ko wundu Amath Diop di candidat. te ñooñu itam réagiruñ. muy ñi dëkkee Ndiaffate ñu dëkkee Kaolack yépp ay autorité lañu. mais mu ngi ñuy not autorité yaa ñuy toog di seetaan parce que mi ngi leen di jox suñu alal. nañ moytu loolu. on n'a pas peur de dire c'est la corruption. ñu fas yéene yóbbu mbir mi ci yoon bu dee élection nar naa am. di kàddu vice président bi de garage. waaw suba élection bu naree am. li ñu war a def mooy. gis nga ko assignation lañ ko def. danañ jël huissier mu dem def constat. réew mi réew yoon la. réewu droit la suñ paree ñu topp ko ci yoon. waaye yow. yaay tulli yaay mbalax lépp yaa koy defal sa bopp. ñun pare nañ pour xeexlu. ñaari fan ci weeri avril jile élection ñeel wàllum renouvellement groupement des chauffeurs et transporteurs bu gare routière bu Nioro daal di xaajale ñi nekk ci wàll gi bu mooyee candidat sortant juróom benn yi fas yéene jongante nag di xamle ne jël nañu dogal boycotté bile élection ndax fichier yi tegul. benn yoon ci yoon na kaw Mbow Kaolack rajo Futur Media. doxub nemmeeku ministre buñ dénk mbay mi nga équipement ak souveraineté alimentaire ca Bente Sénégal ca commune bu Diamniadio Aly Ngouille Ndiaye dem na xool li nga xam ne moom lañu wala moom la Égypte mayoon Sénégal ci ay jiw euh, ci wàllu blé gis na daal yëf yi daal dina ñor Sénégal nag amoon na ko yooyu xeetu euh, jiw euh, novembre bi weesu jëm ci programme bu jëm ci dund gu doy ci mim réew Abdou Diouf Diagne ay leeral. moom sa ministre bi ñu dénk wàllu mbay nag di def lépp lu mu man ngir lu ni mel nag daal di jiwu blé bi ñu jëlee woon Égypte nag te doon ko expérimenté ci biir Sénégal li mu joxe nag daal dinay dal xel Aly Ngouille Ndiaye donc liñ ci gis mooy boo xoolee ñoom ci expérimentation bi dañoo def tool yu bari juróomi tool yi suuf yi wuute na type d'arrosage bi wuute na engrais bi wuute na parce que li ñu bëggoon mooy ñoom buñ ci paree ñu xayma lan lañ jàpp ne moo gën indi rendement gisaguma lépp nag waaye daa mel ni fii dinañ jël ko bi <laughs> waaw na vraiment affaire bi danse na ñoom nag boole ci def arrosage bu Égypte nag fii ci Sénégal bokkoon ci ñu doon nemmeeku ci bërëb boobele lu ni mel tamit la daal di xamle moom mi ne nag mu gis ne suñum réew mu ngi ci yoon ngir bokk ci réew yi nga xam ne dañu fay bay li nga xam ne mooy blé. J'ai félicité les chercheurs pour leur travail ici vraiment euh, surprenant euh, étant sur les champs ou le centre de recherche ici euh, au Sénégal c'est j'ai la même pression quand j'ai été en Égypte ñu xam ko mu doon bërëb boo xam ne nag suuf sa dafa baax lool bët Sénégal nag jamono ji ay promoteur immobilier ñoom ñoo ko sàmm lu ni mel nag moo tax maire bu jam Diamniadio di sàkku nag ñu daal di koy aar Mamadou Moulay Guèye. trois mois ngay def tu as presque quatre cent mille francs. kooku nga war ko liggéey. Hmm. ci jeune kooku jarul ngay dem. donc je pense que. c' est une raison de plus pour monsieur le ministre vous dire que. Euh, exploitation domaine bi lu nu war taxaw la. te naa yaakaar ci yow bu baax nii di nga ci taxaw. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fay bay tamit porox ndollu ci visite bi nga xam ne moom la ministre bi ñu dénk wàllu mbay doon amal ngir daal di wax seen ay jafe-jafe bokk na ci ñàkkum ndox mi nga xam ne dañu koy dund saa su nekk Abdou Diouf Diagne Abdou Diouf Diagne xeex mbënn mi ca Tivaouane moom am na campagne bi ñu fa daal di euh, tàmbale ñu tuddee ko waajal nawet ñi ko amal nag ni ki demb fa fecc euh, wala ci woy euh, ni ki àjjuma lañ ko tàmbalee kilifa yi nag yëkkatee kàddu foofee dem tamit visiter wala chantier yoo xam ne dañ ko tàmbalee defar lu ci mel ni bassin de rétention fa nga xam ne ndox tamit bu ñuy fa lay jaar wa tamit euh, ndox yu salte yi ci Tiwaawoon Maguette Sow moo ñu koy leeral. mbënn mi sonaloon waa Tiwaawoon ci atum 2022 bi ngir xeex loolu nag ñu def benn programme bu ñu tuddee waajal nawet te loolee nag ki ko jiitee di ministre bi nga xamante ne mooy yor wàllum prévention ak gestion des inondations di Isaaxa Diop. programme waajal nawet initiative la boo xam ne dañ ko jël mu nekk loo xamante ne tey taxawaayam ci réew mi mooy fexe ba nawet balaa moo yegsi ñu liggéey ci wàllu fagaru mooy point bas yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo nekk si dëkk bi ñu identifier leen yi nga xam ne tey fii ak nawet bi mun nañ ci am solution boo xam ne ni dañu am ay raccordement ñu def ko mais yi mu mun a amul aussi ñu mun a am dispositif de pompage bu efficace. lu ñeel ndox yu bon yi waaye tamit ak naka rek la ñuy def ba li nga xamante ni moo di askan wi xam naka la ñuy xeexee mbënn mi loolu tamit bokk na ci lu yitteel programme bi le loolu nag ci ñett la tënku benn bi ci jiitu mooy ànd ko ak askan bi mooy implication des communautés ci wàllu formation ci wàllu information ci wàllu sensibilisation gis nañu am nay gox yoo xam ne lay doon jafe-jafe biy jur inondation ci la beneen bi mooy gunge collectivité territoriale te tey exemple ci beneen bi mooy programme ak projet yi nga xam ne état da ko am di ko dérouler sur l' ensemble du territoire loolu moo waral tournée bi ñuy def au niveau national. xaalis bi ñu si def nag takk lool bu ñu sukkandikoo ci ministre bi programme bi nag bokk ci li nga xamante ne mooy ñaareelu phase bi ñu duppee plan décennal buy xeex lépp lu jëm ci mbënd fii ci senegal ci waa wan Maguette Sow rajo Futur Média. tàggat yaram na ci ànd ak Papa Malick Diaw. dal leen ak jàmm kon ci rajo Futur Média ci li nga xam ne moo di sport weekend ñu koy tàmbaleeg football seizième journée Ligue 1 ay match amoon ci li nga xam ne moom moo di bile bëccëg lu ci mel ni Sonacos mi doon daral Guédiawaye ca stade Ely Manel Fall ñoom nag démb lañ daal def 0-0 ñoom ñaari équipe yëpp ku ci nekk nag am naqar ndax ku ci nekk sa boor jàppoon nga ni ndam li xajoon na ci ñu teewlu ci Sidat Sarr moom mi nga xam ne mooy entraîneur ki nga xam ne moo di Sonacos moom nag la a ñaxtu moo di waxtu bi nga xam ne moom la ñuy amale yi ñu teewlu ko moom Sidat Sarr ci micro Idi climat bi tàngaay bi jafe na trop pour jouer football condition yi damay laajte comprendre ma lu tax muy commencé match yi ay quatre heures demi ba ay cinq heures di ngeen wax Diourbel lañ nekk dëgg la mais tàngaay bi yaakaar naa ne kii jógee Diourbel ak kii jógee Tamba ñoo si yem la preuve même ñoom soo sur le plan du jeu dañoo jël seen joueurs yi denc leen sax parce que li leen doon nga di am di am naqar ci un point bi vraiment doonoon Sidat Sarr di entraîneur u équipe bile di Sonacos ci beneen boor bi moom entraîneur u Guédiawaye FC itamit am naqar ci bile poñ waaye itamit dellu si na ci li nga xam ne moo di boobu la jogante jàpp ni nul bu équitable la maanaam ñaari équipe yëpp mérité woon nañ victoire waaye itamit nul bile ñoom ñaari équipe yëpp euh, ñoo ci daal di dox ba tax na taxu ko mu koy euh, metti loole moom Alioune Mbaye ñu teewlu ko itam ci micro Idi Wane. dañoo jógee Guédiawaye doon aussi bu baax ba xam ne ñoom ñoom sur l'ensemble du match ku nekk si ñoom météo la gañ mais tamit jàpp naa ne un point bi ñu jël fii ñoom ñu am ko jàpp naa ne point bu baax la pour le championnat championnat li bon rek bañ a bind te tey tamit dañu fekk Sonacos mu nekk une équipe entreprenante ñëw tam bëggoon victoire parce que fi mu baaxul gëj na gagné donc su nekkee en ñu sees ko du yomb donc point la jàppul boo xam jàpp naa ne point bu baax la ñu koy rafetlu delluwaat rek liggéeyaat pour préparer yeneen zéro zéro kon ci diggante Sonacos ak Guédiawaye FC boobule résultat itamit moo dox ci diggante AS Douane ak Stade de Mbour ñoom ñi nga xamee ni ah, ñu ngi doon laale itamit ca bëccëg bile waaye nag bu ñu sukkandikoo ci lamin jaañ moom mi nga xam ne mooy entraîneur u AS moom jàpp na ni lépp yemboon na ngir ñu daal di foqati yooyu la ñetti poñ donte demeewul noonu ñu teewlu ko ci micro Moustapha faal tey euh, am nañ machine bu nga xamante ne peut vraiment adversaire bi vraiment adversaire bu ñu mënoon gagné euh, nag bon ci premier mi bi premier naa def nañ premier mi bu xaw moyen donc en deuxième mi premier quart bi commencé nañu wane euh, benn xar kanam après voilà ci deuxième quart d'heure bi bi ñu defee changement wala équipe bi soufflé na mooy na am ay situation yi malheureusement situation yi on n'a pas pu les au fond parce que des fois dañuy yàkkamti bi jàpp nañ manque lucidité sérénité boobu bu ñu nekkee ci kanamu camp yi mais dañ ci liggéey duñ ci tay dañu ko ne di ci liggéey ba keroog muy sor incha bu neexee Lamine Diagne di entraîneur u AS ca boobee jamono ki nga xam ne moo di entraîneur u Stade Mbour moom itam daanaka même xalaat lay daal di am ndax jàppoon na ni ndam xajoon na ci bile euh, déplacement même bu fekkee ni poñ bu ñuy ñibbee itamit taxuta bon moom Ibrahima Diakhaté itam ñu teewlu ko ci micro Moustapha Fall. mun naa ni déception la am je suis très déçu parce que match la boo xam ne dañ ko waroon gagné on a enchaîné deux matchs de championnat où on a pris chaque match un point waroon gagné pour pour sore zone zone zone danger zone rouge bi. Ah, ça m'a un dafa interchangeable am na ñoo xam ne foog ñu jox leen seen chance ñu leen di xool parce que tamit suñu attaquant yi booy xool foog ñu leen di reposer di leen ménager des pour ñuy mën a am euh, ressource pour xam nga retour yi day métti ak dese nañu yi aussi donc foog ñuy changer groupe bi parfois pour pour ñu pour a gisaale ñeneen ñi tamit jox leen seen chance pour ñu mu wane dara loolu douane bi a a baraka aujourd'hui parce que sur une mu génne ko am yoo xam dafa waroon dugg mais noonu la mënoon mu doonoon a Diakhaté kon ci témboo itam ci diggante AS Douane ak Stade de Mbour 0-0 yi lay ñaari jongante moo ca des ndax ñoom ci bëccëg bi itam ñu nga doon doxal ci diggante Dakar Sacré-Cœur mi nga xamee ni moom euh, kii di Linguère la doon dalal daal di koy daan ñaari bal ci dara AS Pikine itamit fekki kii di leader bi waaye moom da koy daal di daan benn bal ci euh, dara loolu la waral ci wàllum classement bi moom jàmbaar bi nga xam ne AS Pikine da koy fekk si daan ko benn bal ci dara du taxul mu wàcc ci podium bi ndax ma nga ca bopp classement ba tey ñaar fukki poñ ak euh, juróom benn moom lay daal di amani topp ci Casa Sport mi nga xamee ni moom ñaar fukki poñ ak juróom benn itamit lay daal di am moom Casa bi nga xamee ni ci dimanche gi la nar euh, doxal ci li nga xamee ni moom moo di bile bëccëg ca stade Iba Mar bu 16h30 jotee mu fekk fa US Gorée ca boobee jamono ca stade Maniang Soumaré Seneps Jaraaf lay dalal waaye nag choc bi ca stade Djibril Diagne lay daal di amee ci diggante Génération Foot ak ki nga xamee ni moom moo di Tëngéej Ligue 2 itam ñu nga doon doxal ak ñeenti bëccëg yi ci samedi gile Thiès moom day daal di daan Duc ñaari bal ci dara Tembo 00 ci diggante Demba Diop ak Agel jamono Fatick mi doon dalal Wali da koy daal di daan ñaari bal ci dara ak tembo bi dox itam ci diggante HLM ak Mbour Petite Côte ñoom itam ci dimanche gi la ñuy woyal ca stade municipal bu Parcelles Assainies Oslo moo fay dalal Port ca stade Caroline Faye Ñambour di fa fekki Kër Madior ak it Amitié mi nga xam ne ca stade Alassane Djigo US Wakam la fay daal di fekki football ci réew mi dañ koy daal di woyal waaye nag ak tiis gile nga xamee ni moom euh, mi ñuy wooye Momar Ndiaye mi ñu gën koo xamee ci turu Ndiaye àdduna ni ki samedi gile benn fan ci weeru euh, avril moom mi nga xamee ni xamee nañu ko ci moom mi la ci supporters yi di téye drapeau yi moo xam euh, équipe bu ne ci football waaye itamit ci basket ñu gën ko xamee ci njaay drapeau mi nga xam ne ci supporters yi lay daal di nekk moom mi le nag moo daal di génn àdduna benn fan ci weeru avril bile loolu jural ak tiis li nga xam ne ni moom moo di monde euh, sportif bile euh, ci wàllum euh, Sénégal loolee waral moom président douzième gaynde di Issa Laye Samb yëkkati ci ay kàddu ñu lu ko. di am xol bu fees boo xam ne ni ñu ngi koy bokk ak peuple sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp ma wax ni sax sportif parce que Momar Ndiaye ñu koy wax Ndiaye drapeau dafa dépassé woon dimension sport damay wax ni symbole la woon fii ci. réew mi waaye nekkoon aussi suñu biir magaloon ñu yaay la woon ñu papa la woon ñu aussi tamit bi ñu jógee nouvelle ba léegi je pense que Sénégal yëpp ñu ngi woote fu nekk di bokk ak ñun li nga xam ne moo ñu dal waaye li ma bëggoon seete rek ci yaay Momar tey d'abord ma jàpp ne jullit la woon ndax fu musaan tukki fépp fu waxtu musaan a jot leen musaan bàyyi li naan def ñu julleendoo loolu mën nañ ko seede beneen bi seede bi aussi tamit ku maandu la woon waaye amoon na lu ma remarqué woon ci moom aussi tamit ku ñemee woon joxe ñam boo leen am dina ko bàyyi ak yow lu mu am dina ko bokk ak yow suñu xel dal na nag ci weer wi mu génn ak ci bisu yi mu génn ñu am yaakaar waaye du tee ñu ñaan suñu borom mu teeroo ko njëkkal ak yërmande baaxoon na yéwénoon na ci alalam ak ci xalaatam nitu diine la woon waaye na ku bëgg Sénégal parce que passion du sport passion Sénégal la woon muy réew mi ñu bopp te fépp mu Sénégal musaana woote taxaw na fa ak raayam jëmmal ko fësal ko ba nga xam ni boo gisee rek sa xel tam ci nation bi ñu bokk te mun ñu ko séddoo mu jàppale muy Sénégal. mu doonoon Issa Laye Samb président douzième gaynde ci kàddu yooyu mu amoon ci kaw ki nga xamee ni moo daal di génn àdduna ñi ki sam samedi gile euh, moom Momar Ndiaye ñu gën ko xamee ci turu Ndiaye drapeau basket la ñuy jeexal sport weekend ak euh, li nga xamee ni moom moo di di championnat bi lay file ci mim réew ak neuvième journée ci góor ak ci jigéen ñi ñu tàmbalee ko ci góor ñi ak poule B bi nga xamee ni kon Sibac day daan USO ci dimanche gi daañu ko wëyal ci diggante UGB ak AS Douane bu jotee waaye ñu jàpp itam bi ndam Mermoz daan ASFA 64 euh, jogante moom dañ koy daal di reporté ci diggante Louga Basket Club ak bopp ci groupe euh, B bi itamit ñaari jogante amoon na ci diggante ASC Thiès ak Duc ñoom Duc ñoo daan 72 61 AS Ville de Dakar itamit daan ki nga xam ne moo di Port 81 59 Laari Diouf basket club. ak US Rail dañ koy daal di reporté ci jamono boo xamee ni UCAD ak GIA ñoom ci dimanche gi la ñuy wëyal 17h45 ci jigéen ñi ci ñu tàmbale ko itam ci poule A bi le nga xamee ni ñoom ñetti jogante yëpp wëyal nañ ko ci samedi gi lu ci mel ni AS Ville de Dakar mi daan euh, CMT Ziguinchor 67 50 GIA daan Flying Star 69 40 60 49 ak ki nga xamee ni moo di Débalok mi daan itamit UCAD 48 34 ci poule euh, B bi moom benn jogante la amal ci samedi gi mu doxoon ci diggante Saint-Louis basket club ak ASFO ñoom Saint-Louis basket club ñoo daan 47 41 euh, yii la ñaari jogante ci dimanche gi lañ koy wéyal ci diggante Diamaguène ak ISEG bu 12h jotee ak Mbour moom 13